waaw asalaamaaleykum mbokk internet bu Guédiawaye Info TV tey boo leen xoolee décor bi xam ne ñu ngi stade bi Iba Mar Diop li ñu fa andi mooy jam production daal tëgg combat bu rëy dox war a dox diggante Laye Pythagore ak ki nga xamante ne mooy ñàkk jariñu combat spécial bi nekk diggante Zal Baol ak Brise de Mer numéro 2 waaye combat bi nga xamante ni amateur yëpp moom la xaar mooy diggante Big Pato ak Wuli mu doon combat boo xamante ni kenn yaakaar naa comme ni leen ko waxee woon mu nekk un weekend de feu leen jox rendez-vous si kanam ñu gën a événement bi nga amoon combat capital ban état de forme nga toll. waaw sant bu baax a baax a baax vraiment ñu ngi pare combat bi ñor ñuy bëre tey di ñaan rek yàlla may ñu ndam waaw. ñu gis poids bi nga yor est mun laa jumla ci combat bi. yàqaluma dara ci combat bi yàqaluma dara ci combat bi tey combat bu mag bi ñor laay bëre entraîné naa ñu war a entraîné yal man maam ndam loolu laay ñaan. say ngay lu bees bu neex bu bees daani lii neexul lan nga waajal tey. wapas kali que dafa neex ngay bëre Sénégal gépp di ñaanal waa neexul. ma ngay fay ma ngay fay. tey ngay bëre combat cap de ak gouli ban état de forme nga nekk. combat wa moko laaj rek dafa nekk combat capital comme ni nga waxe mu laaj confiance ak ak forme quoi yalla yalla may ndam rek mu am solo quoi lamb lo, cap ak réer rek ma ngum moom que le meilleur gagne yalla nako ko daan. il fallait mon amateur rek ay pas mu nan nga dara waaj nan nga dara entamé combat non dama bëgg rek ñëw def limi def daan ko 5 secondes rek ñu ngi lay nuyu waaw ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay bu baax a baax bi nan la Aline Fall capital di ndox lay pythagore nan ngeen ko waajalé waaw ñu ngi ko waajal comme ñu ñaan waajalé yeneen combat am solo dañ cey am solo parce que dafa am fuñ am fuñ wara dem mo tax ñu am nañ ci yaakaar ne daal yàlla dinañ ci may ndam ci kàttanu suñu borom ñu gis muy bëree mbër boo mbër boo xam te ne dafa os taw dafa mën a bëree trop côté boobu sa liggéey ngeen waaw xam nga moom ku ko xam xam la bàyyil ak moom bu boo xam ne os rek la bàyyil ak ñàkk jariñu lamb ji daal tey dama lay wax rek ci gàttal ne amul luñ bàyyi bu dee bëre la 45 minutes entraîné nañ ko bu dee xeex la nañ ko amul dara loo xam ne daal tey ñu bet ci bis bi ndam rek la am soob yàlla tey soob pare ngeen ci côté yëpp waaw lépp nag waaw bàyyiwuñ dara bàyyiwuñ dara parce que làmb dafa am dafa foo xam ne dañ faa war a àgg te tey la ko Sénégal xam tey ci kàttanu suñu borom ñu lay ziar maa lay maa leen ziare waajal nañ ko li ñu ko waajale lépp loo xam ne dal na sunu xel tañ am ci yaakaar rek di ñaan yàlla may ñu ndam waaw waajal nañ lépp lépp lu ñu yaakaar rek loo xam ne tey ji mooy tax ñu am ndam rek def nañ ko day ñaan yàlla may ñu ndam seddu guy pare nañ ci ko tey waaw waaw Modou mi ngi ci waa mi ngi ci pare waajal mi ngi waajal bu baax moom it mi ngi waajal bu baax ñu nekk ak père Modou Bey mu nekk tamit ku xam lamb aussi père ñu ngi lay ziar avant tout ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar yéen di ziar bu baax di di kontaan si yéen nag bu baax ah, ban site la noonu ah Guédiawaye info wa ñu ngi ñaan Guédiawaye info yalla nako yalla yàlla barkeel ci barke sayyidna mohammed bon fi ñu tok nak depuis 75 ba ah, ma ngi tok fi ah duma mag nonu mais fekke na fi lamb yu bari les xamna mo feñal nak ma ngi koy nuyu ah ku baax la di nuyu di nuyu écrit bu mu la pastel mbooloo di len sargal di nuyu persagne di contane ci yow bu baax lamb ji nak dañ ci nek per rek di def lu baax di xeex non violence xam làmb nag bëgg làmb am jàmm bëgg jeunesse bi am jàmm bëgg réew mi am jàmm xale yi xam ni làmb ji foo ak reer la du ay reyante ndax ay mbokk ñooy bëre ñu bokk wërsëg ñooy bëre loolu moom dugg si làmb waaw ah, laay xam naa ko laay Pythagore xam naa ko ñoo dëkk doom la ah, ñàkk jëriñu doom la xam naa ko bu baax ku nekk xam naa si palmarès mais dafay ñaari combat yoo xam ne kii dafa jógee si victoire muy laay Pythagore ñaka jariñu joge ci defet ah nima gisee ci taxaway bi ñaka jariñu mo gëna sawar mais 50 50 la nak mais laay laay dafa tay mbir mu tay la mbir mu dis la ñak nak amna lu mu joge dafa joge ci doomu dangu wara wara la fi défi bi combat bu neex nak en tout cas 50 50 la mais lima gis ñak mo gëna sawar waaw waaw mom la lay wax ni man dafa 10 xam nga lay ñu fa dis te ñax mo gëna a sawar te yi ku gëna sawar ci ku gën sawar ci ko bay melni nii a ah, léger bi moy gëna a mooy gën favori wa mo puissance sens voilà lamb la jo xam dal ñaari dom ñaari dom rew ñoy bëre ñaari ñu dom ndey ñoy bëre que le meilleur gagne ku nekk mëna lan sa morom wa di kontaan ci wa info di la ñaanal fex di ñaan la di ñaan di ñaan jamm nak ci rew mi di ko ñaan ci lamb ji xalé yi nañu xamni lamb ji du agression làmb ji cosaan la ñoo ko moom nañ ko taaral rafetal ko ndax loolu mooy dëgg di kontaan ci Mame Less nag daf maa feeñal nag waaye kontaan naa ci yéen. jërëjëf le grand champion Gora Sock kenn doon ko présenté mbër ñu ngi lay nuyu di la yee maa leen fay bu baax di fay nuyu mbokk internet yëpp di leen sant bu baax baax gis nañ seen liggéey taxawaay bi rafet na di leen ñaanal rek yokku. waaw sama teewaay mooy mbër laa comme mbër yëpp ñëw ci stade bi deuxièmement sama taxawaay laay pitaago moo di wax ne ñun lam moo ñu ñor suñu lepp nañ ko bayyi ngir bëre yeah. wa xam nga bëre lépp calcul la te damiyo man nga gagné man nga baña a gagné mais bëre la yag na bëre champion bu ne bëna mbër mu ndaw bëna mbër mu mag kon nu bëre xam nako du même du mbër bo xam ko indi tayre diko conseil yag na bëre amna fi ndam bu nek wa waaw man gisuma loolu nag man am nag nit ñi gis nañ loolu mais man gisuma laay dafa jël poids dama gis ni rek laay liggéey na lu ko war a may ndam te incha allah dina am ndam. waaw toogaay mooy làmb moo xaw a kay rek comme sama naw la mbër yëpp nuñ def la combat jafe ñun ñëpp a bëre mais di wax ni rek ñu ngi ci lu ñu war a nekk di wax samay adversaire ñoom ni ñu xaar comme man ñun promoteur la ñu xaar rek maag taajante yëpp par nañ pour bëre waaw. wa yaakaar naa instant ci promoteur nekk lu ndax ñaari mbeuri joxe seen accord kon ci promoteur yi la mang maag tay ñëpp joxe nañ suñu accord kon ci promoteur yi la quoi no xama do waxa do nek ci ben combat ba wax ci ba sori ci di ci wax ak ay nit di wut delu wat di wax ak ben adversaire mais man may pour tous les lutteurs yeah wa xama mom sama mag la yag na beure ça fait dix an wala douze ans mi ngi bëri man maa ngi def ay quatre ans cinq ans ci lamb laa ko fekk defee samay preuve ba may laaj damay sant yàlla bu baax. Mhm. sama kàddu mujj mooy sant sama gars yi may àndal sa jur rek Lom Toro Abdou Ndiaye Thierno Nourou Ba mii Ousseynou Laye Bas Laye di wax man maay pour lamb ñëpp di nuyu gars yëpp di nuyu Kéba Kanté di ko ñaanal di ko ñaanal li muy sumb yàlla na ko suñu borom sottil ndax nit ku baax la te na amul sa nit di wax waa Cambérène yëpp ak waa man ma ci mu war nak dañ ma xaar rek incha man combat lay xaar suma me combat dañ xamne ne lu may liggéey dinaa ko wane incha allah rabbi non dama ko namm dama namu bëre suma ñëw fi sax yenn saa dem bay bëgg a ci géew bi ma gis bëre yo xam te du ma neex <laughs> waaw bonsoir, nous sommes avec euh, Michel, qui est un Français qui est venu découvrir la liste sénégalaise, la culture sénégalaise. Bonsoir Michel. Bonsoir. Et comment vous trouvez la liste sénégalaise ah, C'est assez amusant, c'est assez folklorique et le, tout l'environnement autour est, assez, assez étonnant. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit Qu'est-ce qui m'a séduit ah, ouais, J'aime bien l'ambiance, euh, les groupes de supporters, euh, le marabout, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Je trouve que ça fait partie de la culture sénégalaise. Et la bagarre aussi, est-ce que ça, vous a un peu surpris, le fait que les lutteurs essence des coups, des fusils là Ouais, alors c'est un peu, ça ressemble un peu au MMA parfois, puis hein, parfois, ça ressemble. Euh, on voit même euh, des bagarres dans le, dans le hockey sur glace. Parfois, on voit des bagarres un peu comme ça. Mais sinon, oui, non. Euh, normalement, dans le football, il n'y a pas de bagarre comme ça, mais parfois, il y en a quand même. les prouesses techniques, comment vous les trouvez Les Les prouesses techniques. La technicité. Ah Alors, je suis pas très connaisseur, mais je trouve que je trouve que c'est bien et j'aime bien aussi les les références à l'histoire, le côté un peu tribu, c'est sympa. Mais pourquoi l'aspect mystique, c'est-à-dire les marabouts, ça, vous fascine Bah parce que euh, normalement dans le sport aujourd'hui, euh, on essaye de mettre de la performance, de la rationalité, et puis là, il y a un côté euh, religieux, un peu irrationnel, qui est, amusant. Alors, Monsieur Michel, le mot de la fin et le message que vous allez véhiculer à l'endroit de la population sénégalaise et des amateurs de la Ligue. Eh bien, merci au Sénégal de m'avoir fait découvrir ce joli sport qui est

dañoo signé contrat waaw. sa diggante yàkkan. Euh, wulli su daanee ah. loolu la ñu waxante wulli su daanee daa bëri ak moom waaw. ndax signé na contrat ba pare. léegi comme signé contrat wulli bu daanoo dañ lay jox beneen adversaire. waaw su oh, ñu jox ma kenn waaw. di fekk sa rak sa doomu ndey Alioune Seye numéro 2 lan ngeen di mën wax ci moom. waaw kooku dafa war a am rek. Alioune dafa war a bëree dafa war a bëree lu gars yi di moom mi ngi liggéey ku dégg ba dafa war a koo ragal ku bëreewul ak moom da nga ragal dafa war a bëree waaw maa ngi gërëm Samba Ndour ba ca Touba waaw sama sëriñ sama xarit maa ngi koy ziar bu wér a wér waaw ak sama avocat bi maître Ndiak Ba Pape Niass ak grand Badara Ndiaye Suisse waaw yéen ñëpp maa leen ziar te ñaan nag préparé leen am naa bis sama bis a gars yi doon xaar laa ilaha illallah laa ilaha la eh grand liiru nag la déggee dafa leer gars yi ana lak la déggee mi ngi fi mi ngi fi mi ngi liggéey dafa réer amateur mi ngi fi mi ngi entraîné baax a baax di laaxatu ñun fi ne dañ liggéey rek dañuy liggéey bi loo ci wax wa li ngi koy ñaanal yalla may ko ndam lu seddu guy rek la dege daan ku jël bu seddu ci loolu la ñuy ñaan ndax boy wax deug yalla daf ñoo sonal mais so dege ku ñu melé ñom dooyu booy ñaa grand pape sarr ñu ni fi tek seen bër xamnañ ko muy balagé la dege dañ koy faxas jall loy wax foofu kan mo wax loolu ñu melé ay ndooyu booy ñaa ak pap sar non ñooñu du ma wax ak ñoom awma lu may wax ak ñoom ah. vraiment man daal la dege la ñaanal mu am jamm at balagé 2 mu am jamm waaw ñu am jamm gëlé way ci kaw ci karam waaw ndax so nee balagé tuddu nga gëlé way kon nag Balla Gaye yàlla na ko yàlla defal jàmm rek muy mu ngi liggéey di xaar mi ngi entraîné di xaar Balla day Lac de day am ndam Balla Gaye bëri am ndam incha allah rabi. kon daal mën naa ni combat bi contre Boy Niang teg ngeen ko fi sori. non yow combat combat Guédiawaye gépp la combat boobu du combat Lac de Guiers dong combat Guédiawaye gépp la Guédiawaye képp kuy mbër Guédiawaye ak képp kuy autorité képp kuy autorité képp kuy mbër. combat boobu sa combat la ndax Boy Niang vraiment dafa dugg Guédiawaye daan fa six personnes. lisu la lancinante question. waru fee duggaat. ma ne laa lancé naa question kii. c'est arrêté abo ah, euh, la dëgër. xëy liiru. ay may booy. ndax le professeur di wàll dina tontu ci question boobu. non dañoo tontu tey. ah la soo ko laaj di wax. dama moo war a war a arrêté booy ñaata dina ko arrêté. ñu bëri di ko diggante ak Serigne Serigne Ndoumbane moo ne xar kanam wu yees est am nga ci njort bu rafet. waaw waaw am naa ci njort ndax la mi ma gis. am na fu mu teg combat bi de. laa ilaha illallah am na fu mu teg waaye ku ne am nga loo doy man mii am naa lu ma doy dama lekk avance jàmbur. waay waay grand Lirou may it waaye nag sa monsieur le maire Aliou Sall sama maire maire Guédiawaye maire de la ville laa ilaha illallah kenn du moom xoolal Guédiawaye bi mu ñëwee Guédiawaye la Guédiawaye la comme Paris ah sa doomu nday am na bis muy kan Lirou Diane laa ilaha illallah lekk naa avance jàmbur war rek boole ko ci. ziar yi tey ci loo nekk.

na don lamb bo bisu kera yalla may ma ndam waaye ba xam baama ñoon wala baama ma ñoon xam ma du bari wu solo na don lamb kiñ ko tuddé rek ba bisu lamb bi may ma ndam day wa man damay way xex dama bari may kon dina neex dina neex wa wa dina neex ko tous les plans ah waa baax na jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla def yàllaay boole yàlla boole leen di bokk benn place waaye kenn ku gëm gëm ñu si morom dafa jot dafa jël ñu jël ñu jël ko jàng loolu moom biir yëpp moo tax ñu am ci tey nag. eh ma waaw.